asalaamaaleykum euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam santam je me présente c'est Serigne Moustapha Mboup euh, coordinateur de euh, Mboup Production voilà bu ñu jógee foofu rek ñuy wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di jaale kilifa gu mag googu bàyyeeku démb Sénégal mooy Abdou Fall Serigne bi ci lala di Serigne Waly Seck ñu koy jaale Diko ko Bep, Mamrou, Ramdan voilà on avait euh, le 8 mars euh, journée de la femme on avait Wali Baragosek à Khombol. mais puisque ...Diam ak pexeem Yalla ak Dogolom, ay ndogal tàbbi na ba am kilifa gu mak gu fi jógee Sénégal yëpp diko naxarlu mu dal nak ci kaw artiste bi ndax nekkoon wasilam ba taxna dañu on a on a on a reporté la date Alors, lolu yakarna ni c'est plus humain c'est plus sénégalais on a reporté la date loolu moy sabab bi dal on a reporté la date pour le 12 avril dañu bëgg puisque xombal moñu ñu tax a jóg te bu xombal dañ koy bëgg yobul ay date yo stratégique té wali Seck ñëpp xam nañu son anniversaire c'est pour le 11 avril ñu bëgg bu joggé le 11 avril euh, anniversaire am mu raxase ko xombal le 12 avril coïncidence rek coïncidence xam nga wali sëriñam sax wul xombal mi ngi gaañoo Touba Toul mais puisque district sanitaire bi gëna reuy xombal la nekk Euh, képp koo xamante ni euh, def na accident ci alentour yooyu xombal moo fa gën a rëy fa lañ lay yóbbu mais euh, même bu nekkoon xombal la sax dañuy jàpp ni coïncidence la ay ndagalu ay ndogalu borom bi la ndax loolu lu borom bi lu borom bi lu borom bi programmé la ko li ñëpp li teewoon ñëpp yaakaar naa ni daf ñuy yomb ndax ki koy tëgg xombal la dëkk ma jox leen benn scoop Wally Seck et de xombal ay maamam xombal la ñu dëkk te loolu dafa feeñ ba feeñ ci bañ koy indi xombal mm-hmm. waaw kon jàpp nañ ni. moom mi nga xamante ni ay maamam xombol la ñu dëkk te loolu ku topp information li nga xam ni Wally Seck est de xombol ses origines sont de xombol kon ñu jàpp nañ ni li ñi ñi doon am double bi la ñu am li gën ñun ñoo koy am label bi moom mi ngi fii label la bu juddoo xombol nekk di liggéey pour Sénégal pour suqali dëkkam génn Sénégal jéggi frontières yi voilà suqali lépp loo xamante ni mi ngi Sénégal te doxul label bi vraiment licence um bëreem sax mi ngi en cours pour sauver l'âme de sax on recule pas on est là on est venu pour vraiment marquer nos empreintes au Sénégal le côté culture rendez-vous le 12 avril Inch'Allah, au stade municipal de Khombol avec Wali Balago nous ñuy ñaan rek ñu ñu def ko kenn Sénégal fi ñuy rek di suñu parce que dafa dafa yombul nga ba nga Nous def say yow.

jigéen ñi nekk ci mbootaay yi chauffeuru camion yi surtout les chauffeurs de camion ak chauffeuru clando yi ñu ngi gërëm ñëpp di sant waa Xombal yëpp. comme ni ma ko waxee on est fin prêt prêt nañu ci côté organisationnel événement bi lépp parce que ku décroché Xelcom Bâche moo la gunge ci événement bi war noonu camion bi waroon départ suba dem fanaani Xombal Faramareen waroon départ pare nga mais bu ay ndogal tàbbee danga koy jël ak philosophie rek te ñun ay jullit lañu xam naa ni daj bi ñu yokk luñ ci yokkul duñ ci wàññi. ci date bi ñu avancé waat lu ñu ci yokku rek duñ ko duñ quoi waaw on le prend avec philosophie ay ndogal la yu tàbbi rek waaw. rendez-vous le 12 avril. avec Waly Balago Seck à Xombol. waaw ñi ngi remercier nag waa Xelcom Bache yi nga xamante ni euh, bi ñu jàppee ba tey bàyyiwunu ñoom ñooy suñu sponsor officiel.